الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد mbokk jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu boroom di dénk sunu bopp ragal sunu boroom tabaraka wa taala te xam ne bokk na ci mbir yi nga xam ne borom bi tabaraka wa mi bind doomu aadama mooñ ko daf ko cee mooñaale muy mbirum sëy nga xam ne lislaam daf ko jox itte yu mag ci lu aju ci wàllu organiser ko ak teg ko ci aw yoon ak jubbanti ko te it na mu doon mbir moo xam ne bari na ay problème bari ay jafe-jafe bari na ay mbir yoo xam ne jullit yi war nañ koo xam mu aju ci tëñ réere ko loolu moo tax lu bëree bëri nag ci ay mbokk ñuy faral di soññee di ñaan ñu jagleel leen ci ay xutba yoo xam ne dafay jëm ci wàllu sëy kon lenn ci xutba yi ñëw insha allahu ñu fas ko yéene jagleel loolu lépp loo xam ne dafa aju ci sii ak i arteem ak i tegginam ci la xutba yi jëm insha allah sëy nag buñ ko waxee ab accord la boo xam ne fam tàmbalee la tàmbalee waaye léegi yéene mooy yëmut fenn diggante góor goo xam ne ay sart dajale ci moom ak jigéen joo xam ne ay sart dajale ci moom ñoom ñaar ñooy def accord boobu lañ cay jublu it mooy li daganul woon ci ñoom lépp mu dagan ci wàllu lay dox diggante góor ak jigéen la daganul woon dagan waaye ñi jublu ci itam fas yéene amal ak njaboot goo xam ne bu baax la fas yéene njaboot goo xam ne bu baaxee itam société ba doon bu baax kon yéene yooyu mooy waral sëy yéene ca la jiitu la daganul seen diggante dagan ndax yàllaa ko daganal la ca tegu mooy yéene amal njaboot goo xam ne bu baax lañ muy njabootu lislaam la ca tegu mooy société boo xam ne bu baax la ndax société bi ay njaboot rek ñooy dajaloo mu doon ab société atteb sëy nag borom bi tabaraka taala moo yoonal sëy feddli ko it ci képp koo xam ne aajo woo na ko yonent yàlla yi jiitu woon dañ ko daan def dañ daan sëy moo tax ku yaakaar ne daa bokk ci ragal yàlla wala dafa bokk ci ak maandute bàyyi lépp lu ñu tudda takk soxna kooka ma nga ci njuumte borom bi tabaraka wa taala nee yónni naa ay yonent yoo xam ne jiitu woon nañ la yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yooyu yëy jiitu dagananoon nan ci ñoom takk ay soxna am ay doom kon borom bi tabaraka wa taala la wax suuratu raas yonent bi sallallahu takkoon ay soxna waxoon na it ne man day danaa takk ay soxna képp koo xam ne soxla nga lu bokkul ak sama sunna nag nee na kooko bokkoo ci man bokkoo ci sama njaboot loolu moo tax boroom xam-xam yi ngi dem ba sax ne àgg nañ ci ne ki takk soxna te aajo woo ko xam ne sax moo gën lu bare bari ci naafile yoo xam ne ñu ngi koy def ndax takk soxna bi li ci tegu ci ay njariñ yu mag yoo xam ne day del si ci ki takk soxna si ak kam takk di del si itam ci biir askan bi léeg-léeg nag mu doon loo xam ne dafa war ci nit ki mu takk soxna mooy su fekkee dem na ba àgg ci boo xam ne ragal na ne mën naa tàbbi ci mooy yàlla su boobaa day war ci moom mu takk soxna pour fekk boppam su fekkee ne am na lu mu ko takkee su ko amut it jullit yi ñoo ko war a dimbali ba am loola moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ni yéen ndaw ñi maa ngi leen di dénk ngeen takk ay soxna képp koo ci xam ne man na ko man ko nag ñaari maanaa rek la am mooy man ko ci wàllu kàttanu yaramam ak man ko ci wàllu am amam ndax bu takkee soxna am na ay war-war yoo xam ne dañ koy war muy ay responsabilité yu tege ci kawam muy dundal ko ak dundal boppam ak itam la muy sol mu di ko ci jox muy sol fa muy dëkk mu dëkkal ko fa kon laaj na dara ci ab am am boo xam ne moom la koy yore kooku doon na loo xam ne mënta ñàkk kooku nag mooy ñoom la tudde albaa mu làmboo yooyu yépp mu ne ndax takk soxna googu mooy tax mën a damm ab gisam ba du xool lu xaraam moo ko gën a fekk itam ba du tàbbi ci mooy yàlla mu ne nag ku ko mënul nag maanaam ku amut loo takke yoroo dara nee na fa alayhi bi sawm nee na kooka na dimbandikoo koor fa innahu lahu wijaar ndax koor gi mooy damm bànneex bi nekk ci yaram bi kon nga xam ne kon ku ko mënul jooju yi mu wax jubluwu ci koo xam ne dafa mënta sëy loolu taxul muy wax ndax su doon loolu kon du ne nay woor ndax mu mën a damm bànneex bi waaye ku ko mënul ji lam ci jublu mooy ku amut loo yore soxna yor soxna nag la jiitu ci nit ki di ko def du tëb tëb rek daal di jékki-jékki jabar waaye dafa am ay jéego yu muy def ak i formalité yu muy jaar mooy li ñuy tudde xitba muy labat labat moom yi nag dafa am ay teggiin ñu xam ne la ci jiitu mooy labat mooy sàkku takk soxna loolu rek mooy labat ci koo xam ne si man naa mënees naa jàpp ne kii ak sàkkoom takk soxna lislaam nangu na ko ndax am nam xel am na am xel su fekkoon ne amutum xel lii ko nangu ab jullit la su dul woon ab jullit jullit ñi duñ ko may seen doom yorul itam ñeenti soxna su xasee yor ñeenti soxna fu mu sàkkoo soxna ko jàppee moo kon daal ki nga xam ne nit ci la ci bépp gàllankoor buy tee ñi koo may soxna kooku la ñuy jàpp na day labat ci wàllu sharia waaye su dul loolu su sàkkoo takk nit itam loolu duñ ko jàppe labat ba sharia digle kon atte ya war a tege ci labat yépp amu ca benn xàq labat nag suñu xasee waxtaan ba juboo ca loolu ak dëppoo la ci principe maanaam ab dégg la kenn ku nekk dégg nga sa moroom dara loo xam ne jaadu na nga jiim ci góorgóorlu ndax borom bi tabaraka wa taala daf ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen sàmm seeni dégg su ngeen nee danaa def dara ngeen def ko suñu nee du ma def dara te loolu baaxut ngeen bañ koo def loolu borom bi digle moo tax kuy labat ak te ñuy labat bala ngaa joxe sa kàddu war nga koo seet bu baax a baax a baax boo ko seetee nag ba jaar fi nga war a jaar fépp ba mu sës nga door a joxe sa kàddu ndax xam ne diggee nga loo xam ne delluwaat ca mën naa bañ a yomb lool mooy jéego bi jëkk daal ci mbirum takk soxna jéego ñaareel ba nag mooy li ñu tudde listixaara sëy ci mbiri jullit yi am importance ci la bokk ndax day loo xam ne dafa war a continuer li fekk waajaa ngi dund li fekk soxna saa ngi dund amul fu ñu koy wutal foo xam ne dañ naan fa lay yem kon lu war a continuer la doon mbir moo xam ne responsabilité yu mag yi tam cee tegu kon ki ci bëgg a dugg war naa def li ñu tudd listixaara muy tànnloo sa borom yonente bi sallallahu alayhi wa daf ne su kenn ci yéen ittewoo menn mbir xamul ndax da koy def wala du ko def wala ndax su koy def fii la koy defee wala feneen la koy bëgg daal ku ko tànnal nee na jàpp julli ñaari rakka yu bokkul ak farata waxtu woo xam ne daal manees na caa la mu daal di jàpp julli ñaari rakkaam daal di wax ñaan gi mu ñaan nga firi yow saa boroom maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi ak ci sa kattan gi di la ñaan ci sa ngëneel lu màgg li ndax yow kat yaa am kàttan man awma kàttan yaa xam man xawma te yow lépp lu nëbb yaa ko xam yow saa boroom bu fekkee xam nga ne mbir mii may bëgg a dugg moo gën ci man ci sama diine ak ci sama dundub àdduna ak ci sama mujjub mbir kon yàlla nag ma ko jàpp ndalal yombalal ma ko defal ma ci barke su fekkee nag xam nga ni mbir mii baaxul ci man baaxul ci sama diine baaxul ci sama dunduk àdduna ak ci sama mujj kon nag mbir mii yàlla nag ma ko dàqal te dogalal ma lépp loo xam ne lu baax la te xéewale ma loolee nga may dogalal dogalal ma am ca mbégte sant la ca kon kat loolu mooy ñaan gi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jublu mbir moom ngay ñaan muy xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixul buxaari mu ne nag ci biir ñaan gi nag day tudd aajoom day wax lam soxla ci boppam su ko defee bu da koy julli ci waxtu bu mu ko soxlaa julli wu nekk kon ñaari ràkka lay doon su sëlmalee ci lay jàngi ñaan googu dagan na itam mu di ko baamtu ay yoon maanaam du benn yoon rek su ko defee mën na ko defaat ndax ñaan la baamtu ak ñaan dara nekku ca demewul nag li ko ñu bari di jorte dafa ne nit bu istixaara day war a nelaw am yu mu gént gis ko wala yu mel noonu déedéet gént nekku ca li am solo mooy ginnaaw ñaan na boroomam rafet njort ci ne lii su gënee ci moom dana ci gis ak yombal dana yëg ci xolam itam ne xolam bépp jublu na mbir moom yi su ko defee borom bi tabaraka wa taala defal ko ci ay yombal su gënul ci moom nag day tàmbale gis gàllankoor ya ak bunt yu tëju ya xol ba ca jëmoon itam tàmbale di wàññiku ndànk-ndànk su ko defee mu xam ne loola gënul ci moom yëg ne borom bi tabaraka wa moo ko ko fonqal kooku mooy li jëm ci wàllu istixaara nit ki mënu koo bañ a def su fekkee ne dafa jublu lu toll beneen bi ci des mooy al istichaara mooy diisoo te ñuy diisoo ci mbirum sëy mooy koo xam ne am na expérience ci wàllu sëy maanaam am na ca lum ca xam lu yaatu ak it koo xam ne xam na kii nga koy laaj maanaam ñaari mbir la benn bi mooy na am expérience ci wàllu sëy kan moo ko mën a kan moo ko tële ak ku doon tànn kan nga war a tànn ak kan nga wërta tànn beneen bi mooy kii nga koy laaj ne ko diw sàngam mii moom laay bëgg a labat wala bu dee jigéen di ko diw sàngam mii moo bëgg a ñëw di mu labat na fekk kooke ñu koy laaj xam na ku mu doon ndax su ko xamul du mën a tontu tontu loo xam ne lu wér lay doon su loolu amee nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ne ci ñi gënoon a bari lu muy diisoo ci la bokk Abu Hurayra nee na mosumaa gis ku mel ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci diisoo lu yëngu rek faaw mu woo leen ci saxaaba yi diisoo ci ak ñoom nan lañ ko war a defee dafa doon nag loo xam ne lu muñ ca ñàkk la moo tax al imaam al xasan al basri day wax ne nit ñi ñetti xaaj lañu maanaam góor gu mag ak góor goo xam ne genn wàllu nit la ak góor goo xam ne du dara nee na góor gi mag mooy ki yor ay xalaat ba noppi di diisoo maanaam doy loowut xalaatam ki nekk genn wàllu nit nag nee na mooy ki am xalaat waaye du diisoo am na xalaat yu bare bari yu jub waaye nag du diisoo nee na kooku genn wàllu nit la ndax lu say xalaat baax baax soo diisoo day dolli ko rek waaye du wàññi ko dul dara nag mooy koo xam ne amul xalaat yu baax ba noppi du diisoo loolu moom it mi ngi ci biir nit ñi kon diisoo doon na lu mënta ñàkk ka ñuy diisoo yëpp dafa jaadu mu doon koo xam ne ku wóor la ku wóor la su xamee ayib du ko nëbb ndax su boobaa dagan na mu tudd ko kooku bokkul ci jëw dañoo ñëw di ko laaj mu xam ci moom ko bu baaxul na ko wax ne ko mi ngi jikko sàngama gi ci moom kon du nëbb ayib du wax ayib joo xam ne amut ndax léeg-léeg nit ñi iña gis kee di bëgg a takk soxna mu iñaane ko ko wala moom ci boppam sax amaana mën na koo soxla mu tuddal ko ci ayib joo xam ne amut ngir waaj a génn ca ba mu mën caa dugg wala mu mën caa dugal keneen loolu itam bu boobaa du dagan teggin ba ca des mu war koo sàmm moom mi ñuy diisool mooy diisoo googu ñu diisoo moom na yem ci digganteem ak ka diisoog moom képp bu ko keneen yëg du ko labat du keneen waaye mu ñëw nga wax ko li nga ko wax ba àggal mu wëlbati ko waxaat ne ñëwoon na fi man waaye nee naa ko nàngam wala moom mi ñëwoon di diisoo yow mu jógee fa moom tasaare xabaar ba ne ndaw si kët man du ma mën a ànd ak yow ndax laaj naa diw nee na ma nangam ak loolu ay mbir la yoo xam ne day tukkal àdduna jullit bi war na ko jéego ba ca tegu mooy su fekkee dem na nag ba def yooyu muy def yëpp ba dogu ci bëgg a labat la jëkk dagan ci xaraamoon ci moom mooy dagan na mu xool ko bi nga xamee ne fas na labat ci xolam te waxagu leen ko ndax foofu lañ soppe xool bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci yéen bu nammee labat jigéen su ko mënee gis na ko gis su mënee gis ci moom luy tax mu bëgg ko ba soxla koo takk nee na na gis loola ci moom Abu Hurayra nee na benn bis toog nañ am ku ñëw fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day damaa takk soxna soo xam ne ci lansaar yi la bokk muy waa mu ne ko ndax xool nga ko buñ ko daataan takk mu ne ko déedéet mu ne ko demal nga xool ko kon dañ ko ko fasal te gise bu ko mu ñëw fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko demal nga xool ko ndax ansar yi dafa am lu nekk ci seeni bët dafa am lu nekk ci seeni bët boroom xam-xam yi ñu ne loolu lañ ci jublu mooy ay bët yu xew seeni bët daf ko taxuta da leen a taxula am bët lool moo tax al imaamu nawawi mu ne lii mooy wane ne kon sopp nañ ci ki bëgg a takk jigéen mu xool kanamam mu xool xar kanamam comme ni nga xam ne dagan na ci jigéen yi mu xool ku góor gi kon loolu mooy atteb labat fi ñu bëggee mooy atteb xool fi ñu bëggee mu xool fa kon mooy bi mu ñëwagul ne leen day labat su fekkee mën na ko defee foofu moo gën waaye kat ne leen damaa bëgg a labat seen doom ji maa ngi ñëw xool si ko su ñëwee xool ba noppi dellu dellu siwaat it kooku lor la joo xam ne nit ki daf koy yëg ci biir kanam kooku nit ki day wattandiku lu mel noonu kon mën naa wut occasion boo xam ne mën na koo gis jéem koo xool ba mën caa xam loo xam ne dana ko woo pour mu ñëw bëgg si ko su ko defee bu ñëwee door a déclaré nag ak labatam foofu lay baaxe jéego ba ci tegu moo di du dagan mukk ñii def lu bari lu nit ñi def tey muy di weccente ay photo ak di ko yónnente moo xam nag moyen bu mu mën a doon cheikh mohamad ibni saalih al usaymin rahimahullah dañ ko ko laaj mu ne loolu day man gisuma ko gisuma ne dagan na lu tax mu ne ndax photo boobu yi mu koy yónnee amaana mën naa bañ a yem ci moom te moom dong la daganoon mu xool ko moom mi ne day waaye mën naa bañ a yem ci moom keneen mën na koo gis su boobaa du jaadu ñaareel ba moo di photo ci boppam wanewut la jëmm doon nee na photo yu bare bare da nga ko gis mu yéem la lool boo gisee jëmm ja fekk na ndekete wuta nañ lool ñetteel ba moo di amaana mën naa jot ci photo ba di ca gis lu ngor lu kenn sañu te gis ba noppi amaana mën naa wëlbatiku labat gi mu doon mu bàyyi ko photo yi des fa moom mu di ko fooyee nu ko neexee kon yónnente ay photo ak weccee ko moom kooku ko ci li lislaam di nangu juróom-benneel ba moo di nit ki ci muy labat du dagan muy wéet ak moom ci béréb boo xam ne ñoom ñaar doo nga fa nekk su amee ku leen ñetteel nag mën naa nekk dagalu ci tam muy génn di ànd ak moom mu xam ne ndaw soos yi la ci moom lu bari ci jullit yi tey nag dañuy bàyyi seen doom ak seen i njaboot yu jigéen ginnaaw nit ñëw na di leen labat ñuy ànd ak moom fu leen neex génn dugg léeg-léeg sax ñu ànd ak ñoom tukki mel ne labat daal buñ ko xasee wax daal loola mooy jabar te fekk charia nag ko noonu li fee ko rek kooku doonagul jabar ab jàmbur la dagan na nit ki ki muy labat mu waxtaan ak moom face à face wala ci téléphone wala ci bépp moyen boo xam ne mënees na caa waxante wala bindante ay leetar wala moo xam leetar yooyu leetar yu jaar ci poste la wala day jaar feneen fu mu mën a doon moo xam ne ci portable lay jaar wala day jaar ci email wala fu muy jaar fu mu mën a doon loolu dagan na ñu tënk ko rek ci kaw ne leetar yooya day doon leetar yu set wecc leetar yu maandu yoo xam ne dara lu daganut ñu koy wax ci diggante góoru jaambur ak jigéenu jaambur leetar yooya loola du ca ne kon li jëm ci sëy bi ak accord yeeg ni ngeen ko bëggee ak yu demee noonu ci ngeen sañ wax waaye na jéggi loola nag di wax ci loo xam ne diggante ñaari way dencante fa war a jaar lu jëm ca foofa rek leetar ba day daal di bu dee waxante la ci téléphone wala lu ko nuru it bu boobaa waxante wa day daal di ndax mu xam ne moom ci boppam ab jàmbur la ba tey su ma nee sax waxtaan yooyu muy waxtaan wala leetar yooyu muy def su ma nee fexe ba mbokki ndaw si di ko dégg wala ñuy gis leetar yooya loolu moo gën a nuru ak maandute te itam moo gën a baax moo gën a mën a dàq am lëm si itam ci digganteem ak ndaw soosu ndax bu fàttee ne day labat rek te kenn xamut ba tey ndax dana wàññi ku bàyyi waatam déet juróom-ñetteel bu mooy du dagan ci nit ki ginnaaw xas nañ bay labat keneen bu ma a ñëwati mukk di labat Abu Hurayra nett la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ki bu ñëw di labat ci kaw labatu mbokkam bu mu ñëw di labat ci kaw labatu mbokkam nit ki ñëw na déclaré labat keneen ñëwaati wax te fekk yëg na ko su boobaa loolu du dagan waaye nag moom ñu mujj ñëw su fekkee xamul woon ne fële am na ku fa nekk wala ku fa joxe kàddoom kooku ak ñëwam dara nekku ci xaraamul ci moom muy ñëw ndax yëgul ne kenn nga fa moo tax mu ñëw joxe kàddoom su boobaa nag ndaw si xam ne kenn nga fa su ko neexee mën naa nangul kii mujjee ñëw su fekkee joxul kàddoom ku jëkk ku jëkk ki bi mu ñëwee daf ko jox kàddoom mu ne ko maa koy seet keneen ñëwaat wax ko bu ko neexee mën na koo nangul bàyyi ku jëkk ndax joxooku ko waaye nag bu xasee ba jox ko kàddoom kat su boobaa jullit bi dafa war a garder dafa war a garder kàddoom ba ca tegu mooy ndaw si nga xam ne jëkkëram daa faatu mu nekk ci téeñ yi ñeenti weer ak fukki fan yooyu mu koy téeñ wala ndaw si nga xam ne passé nañ ko passé moo xam ne passé mu dog la a mi ngi ci passé mu ñetteelam xam ne wóor na ko ni mun mënta dellooti ci jëkkër ju jëkk ji lu dul gannaaw bu amee jëkkër kooku sharia xaraamal na nit ki ñëw di leen labat li feeg ñu ne ci biir idda ja waaye nag nit ki mën naa gaaral moo tax borom bi tabaraka wa taala loolu la wax mu ne amul benn bakkaar ngeen gaaral ci labat jigéen ñi nga xam ne ñoo toll foofu am na ki nga xam ne nag dañ koo fase pase moo xam ne du pase mu dog maanaam mi ngi ci pase mu njëkkam benn bi wala mu ngi ci ñaareel bi kooku du dagan ab jaambur di ñëw di ko labat ndax ba tey dogagul digganteem ak jëkkër ji ko fase daggagul loolu moo tax keneen mun ci ñëw di ko di ko labat te day xaraam ci moom ndaw si itam nit ñëw jox ko ay kàddu mu di ko wuyu foofu ndax ñu ngi mel ni jabari jàmbur joo xam ne dañ koy labat su boobaa labat ci kàddu yu leer nag moo gaaral li leen wutale mooy kii labat ñëw ne daf dama laa bëgg a takk soxna wala dama laa bëgg soxna kooku kàddu yu leer la waaye ki ñëw ne man day bëgg naa ku mel ni yow kooku dafa gaaral gaaral boobu nag lañ wax ne dagan na ci ki nga xam ne dafa nekk di ténji wala mu doon koo xam ne dog na ak dog gu dagg ci digganteem ak jëkkër ju njëkk ja waaye nag duñ fàtte mukk nit duñ fase mu nekk ci fasem mu njëkk li ñu tudde fasem payel yi muy fase bu njëkk ak fasem ñaareel kooku du dagan mukk nit ki di ñëw di ko labat moo xam day gaaral moo xam day wax leneen ba ca tegu moo di jaaro bi nga xam ne nit ñi suñ labatee dafa doon aada yoo xam ne du aada yu jullit ñuy gis ñi di ko weccee di ko takk laaj nañ ko cheikh ibnu usaymin jaaro boobu mu ne ab jaaro day jox ko nit ci cosaanam lu daggan la maanaam dara nekku ci waaye nag su fekkee yeneen i pas-pas da ca lonku parce jaaro yooyu ñu koy joxante ku góor géeg ku jigéen ki ñu koy wecceente léeg-léeg kii bind ci turam turu ka ca des kii bind ñu weccee kenn ku ne sa tur morom am nay pas-pas yuñ ci fas yoo xam ne dañoo jàpp ne loolu day dëgëral seenu cofeel wala dafa am secret bu ci nekk boo xam ne mooy tax sëy bi mën a nekk wala yu mel noonu pas-pas yooyu su ca duggee nee na dafay yàq su boobaa day xaraam ndax dañu dañ caa dugal loo xam ne ci bokkut la du dagan itam ku góor gi muy jël jaaro bi niñ ko gisee ñi koy def jël ko di ko takkal ko jigéen gi di ko ko takkalal boppam ndax kat ab jaambor la ci moom sañu ko laal kon mënu ko takkal ab jaaro kon su boobaa loolu moom itam day dagan ndax ndaw si jàmbur la ci moom du doon soxnaam lu dul su fekkee nit ñi daje nañ si jàkka ja wala ci bérébu kaay ba fas soxna sa foofa foofa rek la mën a nekk ba ca tegu moo di nit ki su ñëwee di labat ñi xool ko ci wàllu diine ko ci wàllu jikko mu mag ci ñaari mbir yooyu kooku la sharia di al kuf kooku la ñuy wax ne kii nawleem la ndaw si doomi jullit la ab jullit la bu baax la ki ñëw di ko seet si itam ab jullit la bu baax boo xam ne boroomi jikko la loola la sharia wax na ku mel noonu su ñëwee may leen ko soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee su nit dikkee di labat seen njaboot te fekk moom moomee gis ngeen ne diineem luñ gërëm loola ay jikkoom luñ gërëm loola nee na na ngeen ko soxna ndax su ngeen defut loolu kooku fitna lay jur ak yàq gu yaatoo yaatoo yaatu ci kaw suuf kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñi nga xam ne léeg-léeg ñu delloo ay nit yoo xam ne xam nañ ne seen diine noona la seen jikko it noona la waaye ñu leen di delloo ci kaw yu ñàkk solo léeg-léeg alal lay doon léeg-léeg ay askan ak ay juddu te yooyu doonut yoo xam ne lislaam jox na ko benn considération xëy na incha allahu ci yeneen xutba yi ñëw danañ gën a yaatal ci bunt boobu ak itam melokaan yi nga xam ne moom lañ taamu ci jigéen ji nga xam ne moom la ku góor ki di labat ak melokaan yi nga xam ne moom la ku jigéen ki di war a tànn ci ku góor ki gannaaw boo xamee ni jikko ak diine jàll na allahuma faqihna fi diin wa jannibna zalala wa shayn wa naqi qulubana min arrayn وحل قلوبنا وأفعالنا بزينتك التي ما بعدها زينة وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo wax ne leen lu nekk bind naa ci ñaari way dencante di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi wax ne ki gën ci seeni jigéen mooy koo xam ne kuy jur la te ab soppe la kuy dalal xel la kuy taxawe lu baax la te ragal yàlla ki yées ci seeni jigéen mooy koo xam ne bu génnee di feeñal ab taaram bu génnee di ko feeñal ci aw doxinam ak ci colinam gannaaw loolu ñu xam ne lislaam dafa jàngale xemmem loo nit ñi wépp melokaan woo xam ne melokaan bu baax la melokaan wuñ sant dénk jigéen ak góor ñu góorgóorlu fexe ba su fekkee dañoo jublu projet bu rëy boobu nga xam ne mooy wàllu sëy ñu fexe ba bàyyi xel bu baax a baax melokaan yi nga xam ne moom la lislaam gën a tànn melokaan yooya nag danañ ci jukki li ci ëpp ci li nga xam ne boroom xam-xam yi tudd nañ ko mu doon lu mat a bàyyi xel ba ca njëkk moo di mu nekk boroom diine moom ka ñuy tànn yonente bi sallallahu alayhi wa moo soññee ci loolu mu tudd ne jigéen des na ko denc ngir mbir yii danañ ko denc ngir alalam am nit ki dana tam di takki jigéen ngir ci kaw ne jigéen ji dafa bari alal wala ngir aw askanam dafa bokk ci askan woo xam ne boroomi juddu lañ wala boroomi daraja danañ ko takk itam ngir taaram nee na danañ ko takk itam nag ngir diineem kon mu teg ca ne fasfor bi daati na kon yow mi wut defal sa bët ak sam sa jubluwaay na jublu ki nga xam ne mooy borom diine na jublu borom diine loolu su fekkee ne defoo ko nee na kon taribat yadaak maanaam teg nga sa loxo fi suuf la ci koo xam ne dafa perte maanaam soo ko defut soo bàyyiwul xel diine muy tànn yeneen ya ca des bàyyi diine kon nee na nga kon mbokk jullit bi jóg di wuti soxna na bàyyi xel ci diine mu doon la muy jëkk a seet su jàllee yi ca def yëpp alhamdulilah su amee yeneen yu ñëwaat gannaaw ba ci yooyu yi mu tudd kooku xéewal bu fekk si xéewal la doonut loo xam ne luy yi dara la waaye nag mu xam ne yooyee di alal ak askan ak taar doonut li nga xam ne mooy jubluwaayu lislaam bu jëkk doonul jubluwaayu lislaam bu jëkk waaye nag su fekkee ne taar boobu yi nga xam ne mooy taaru bind ak taar bi nga xam ne mooy taar ba nekk ci biir muy diine suñ dajee ñoom ñaar kooku nag mooy xéewal bu mag ga nekk noonu jigéen ji itam moom mi tànn na bàyyi xel lool ci ku góor ka koy dikkal lu aju ci wàllu diineem ak jikkoom lu aju ci diinam ak jikkoom te wattandikoo woru maanaam yi muy gis ci biti rek nax ko loolu ñaar ñëpp lañ koy di wax ndax góor ñi léeg-léeg mu gis ci jigéen yi ay melokaan yu ko nax fekk melokaan du melokaan yi dëgg-dëgg waaye ci góor gi melokaan yu ko nax wala sax yàlla na toog mu doon koo xam ne alal lay xool wala daraja wala yëf yoo xam ne yëfi àdduna kese la su duggee ba ci biir gis ne ndekete diine ak jikko rek moo am solo ndax boroom diine mooy koo xam ne su fekkee ne day nekk ak yow day nekk yow ci jàmm ak tiraanga bu dee tàggoog yow it tàggoog yow ci sutura ak tiraanga ñaareelu melokaan bi mooy jikko jikko ju rafet diine nag buñ ko waxee nit ki na doon jaamu ko te yàlla na doon ko ragal yàlla na doon koo xam ne yi muy def yi ñu koy sant yëpp da koy def di bàyyi yi ñu koy tere jikko nag buñ ko waxee melokaan la woo ne nit ki daf koy melowoo nit ñi lu bare bari ci ay pays yoo xam ne mi ngi am problème te danañ ñëw bu soobee yàlla ci xutba ne ci ngi jëm ci problème yi sabab sëy yi di tas danañ gis ne lu ci bari nag fànn gi moo koy waral jikko bu dee ci wàllu julleeg woor nit kaa def yi xam ne moom la ko lislaam sant yañ koy tere it ma nga cee bàyyi lam man lépp sax naani wut sàngara caaxaanut taxawaalu wut waaye nag bu dara desu bu ñu réere googu ñuy réerante liñ war a niñ war a jëflantee mooy waral jafe-jafe yi di am kon jigéen rôle bu mag bi mu yore maanaam sax wuri bi nga xam moom la ko lislaam sax ci biir kër gi loolu moo tax moom bu fekkee am na kenn ko aajowoo jikko ju rafet moom ci ñi ko gën a aajowoo la bokk ñépp ko aajowoo nag mooy responsable ci sàmm ay xaleem yar leen ak wattu leen ba duñ loru mooy responsable ci sàmm këram li jëm ci aar ko ak setal ko ak wattu ko moo jëm sax ci sàmm jëkkëram ci boppam ak taxawu ko boole ko ak sàmm boppam ak wattu ko su fekkee ne jëkkër ji daal mooy responsable bi nga xam ne moo jiite mbir ci wàllu maanaa xam ne suñ doon wax daan dañ naan mooy directeur général ba su fekkee loolu am na li ñuy tuddee directeur exécutif nga xam ne mooy ki nekk ci digg liggéey bi nag moom kooka moom mooy jigéen ci kon kooku rolam moom duy la su duggee ci kër gi rek la muy xool nit ka dugg ci kër gi lu muy jëkk xool rek mooy jeexiti jigéen ji ci kër gi yan taxawaay la fa am nan la mel kooku nag ci mbiri melokaan ak jikko ak bind ak ab yar yooyu ci lay feeñe ñi xam ne kii ku waxtu këram la ku ko garde la ku ko teg ci yoon la wala ñu xamante ne kii ku neenal këram la ku amul benn soxla ci këram la loolu lépp nag jëkkul dara ak diineem amaana ko julli la di woor ragal yàlla def yi muy mën yëpp waaye nag bu dee ci wàllu yeneen yi ko war càggante day daal di dugg foofu kon jigéen ji nga xam ne daal borom jikko la nekk borom diine kooku mooy ki jëkk a taxaw ci li ko yàlla digal mu di ko def wattu ay xàqam yi dox digganteem ak boroom këram wattu lépp lu jëm ci ak njabootam akub lalam ak alalam sax kuy dimbali boroom këram la su fàttee mu fàttali ko su taayeelee sax mu sawaral ko su meree sax mu fexe ba mer ma dañ loolu lépp nag la koy boole mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki gën ci seen jigéen ñi nee na ki gën ci seeni soxna mooy koo xam ne su ko boroom këram xoolee bég maanaam dana fexe ba ci yaramam luy setadi luy tax bët di ca tege kooko di amu naqar loola du feeñ ci yaramam kon su ko xoolee bég su ko digalee nee na mu def kon su ko digalee lu baax te it di jooyoog moo xam ndigal li dafa jëm si ci boppam moom ndaw si mu li war a dox seen diggante wala sax dafa jëm ci alalam maanaam du ko defal daal lenn loo xam ne lu ko naqari la yonente bi alayhi tax ñu tere jigéen ni kuy wut jigéen na wattandiku ñoo xam ne koo xam ne dafa dajale melokaan yii ki ñu tudde al annaana nee nañ mooy koo xam ne fu mu toll fu nekk rek njàmbat mooy wàllam du xool mukk leen lu tane waaye fu mu toll lu ne lim manqué la lay wax moom lay naqarlu saa bu ko borom këram waxee moom rek mu ne ko man de ba tey amaguma nangam ba tey kër gi nangam nekku fi ba tey yu mel noonu njàmbat daal lay def ci lu jëm ci wàllam ak lu jëm ci wàllu këram dëgg la li manqué moo ko war a yëgle boroom këram war caa taxaw waaye nag it dafa am ay yoon yoo xam ne ca lañ koy jaare waaye bu ne bu ne salaamaaleykum ci kër gi rek mu ne nangam amagul nangam amagul kon kooku la ñuy tuddee al an xam ne li gën a fës ci melokaanam mooy jàmbat ke ci tegu noona mooy al man naana mooy koo xam ne bu defalee boroom këram dara ma nga muy di ko lim xam lan la ak lan ak lan ak lan ñaari baat yi ñu wax mu ne ko xanaa du maa la defaloon nangam xanaa du maa la defaloon nangam di ko limal yi nga xam ne yooyu la koy defal ba ci tegu mooy alxannaana mooy koo xam ne dafa jaaroon ci ab xëy ba noppi fu mu waxee jëkkëram fàttali ko ngëneel yam nekkoon ci sëyam bu jëkk ba kooku moom itam ci lii indi ay jafe-jafe ci la bokk xam ngeen ne eh, soxna su màgg su baax soosu ñuy wax <coughs> Asma bint Umays joxoon bint bu am solo foofu ndax soxna soos dafa jaaroon ci ay boroom kër door a agsi ci ali ibn abi taalib jaaroon na ci jaafar amay na doom bi muhammad jaaraat ci abu bakar as siddiq amay na doom bi ñuy wax muhammad ñëw ci ali ibn abi taalib benn bis ci gàttal wax ja ñaari muhammad yooyu muy muhammad ibn abi bakar ak muhammad ibn jaafar fekk soxna saa ali dañoo am werante kenn ku nekk waxtaan ci sa ngëneelul baay bëgg koo won ne ko maa gën sa baay maa la gën la baay bi ñu waxee loolu ñi àtte wu ñëw ci seen yaay fekk Ali mi ngi toog kenn ku ci nekk mu wax ci baayam ay ngëneel yoo xam ne eh, wax na kii ne ko yow de bu fekkee ne ci mag ñi la gisuma man mu gën sa bàyyi yow mi itam bu fekkee ne ca ndaw ña la gisuma la ku la gën bàyyi kon noonu la leen atte ñoom ñaar waaye bi mu waxee loolu këram bi toog ni Ali ibn Abi am na lu mu yëg mu ne ko ah yow de wëccaloo ma fi dara bàyyiloo ma fi dara mu ne ko ah ñett ñu daje day su fekkee Ali mooy ko ci yées su fekkee Ali mooy ko ci yées kon ñooñu seen tolluwaay dem na dayo loolu daal di gërëm loo Ali ibn Abi Talib kon ay mbir la yoo xam ne ay kàddu yu gàtt ci fànn ku mel noonu mën naa yëngal euh, ku góor ka mën naa yëngal borom kër ba tax mu mën a indi ay jafe-jafe na xam nga ni ñooñu la shakk ne Abu Bakr Siddiq radiallahu taala anhu maqaamam ci lislaam ak Jaafar ak Tayaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ci moom ci ay ngëneel kenn ku xam ne ñu màgg Ali ibn Abi Talib xam na seen gëneel yooya waaye ne ginnaaw soxna sa jaaroon ci ñoom wax ci ñoom loola en tant que doomu aadama bëgg naa dégg moom it lu jëm ci moom moo tax mu junj lu mel noonu ba soxna si tontu ko tontu lu am solo loolu ñu ne bokk na ci ki ñuy wattandiko itam mooy ki ñu tudde alxaddaaqa mooy koo xam ne daal la muy xool fu mu toll fu nekk mooy rek soriwut ak kiy jàmbat xëy na jàmbatul moom waaye la muy xool xoolut lim am waaye li nga des am rek fu mu toll fu ne lay xool loolu mooy jur melokaan bu njëkk woowee buy njàmbat borom bi tabaraka wa taala daf ne wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwaajan bul sànni say bët rek ci li nga xam moom lañ xéewal ñeneen ñi ca def waaye nag nga xool yooyu tam defal ci xéewal ndax kenn ku ne am sa xéewali bopp boo demee mi ngi lay ñee naan waaye yow te fekk yow yëgoo bokk na fi nee na mooy koo xam ne waxtoom lépp lépp ci li mu koy jeexal mooy tuwaalat boppam defar ay yéeréem waaye lu aju ci wàllu këram amu ci soxla jëmm ji daal bu génnee ñu ne kee moom tabaarakallah waaye ku ñëw ci kër gi rek daal di koy xeeb kooku itam lu mat a waxtandikul ki ci nee na mooy ashaddaqa nee na mooy koo xam ne dafa bari lool ay wax te wax jët ci lu amul njariñ lay doon ne wax kat bu baree ta am njariñ it wàññiwul dara waaye nag wax yu bari joo xam ne daanaka borom du noppi kam nekkal daanaka du am jàmm ndax di ko déglu loolu itam bu yàggee mën naa tax nit ki yokkat te yokkat mooy indi ay ñagas-ñagas kon melokaan yooyu yu war a wattandi yu mat a wattandiku la ci wàllum jikko buñ ko melalee noonu nag ci ku jigéen ki xëy na dafa gën a sensible gën a doy waar waaye niñ ko bañee ci jigéen noonu lañ ko bañee itam nag ci góor kenn ku ci nekk melokaan yooyu wenn baaxu ci ci yow ndax góor gi ci boppam moom lañ yaakaar bu ndaw si amee njàqare sax mu man koo dalal kon su fekkee ne moom mooy jëkk a bari lu muy jàmbat kon dana daal di jaaxal soxnaam donte am na anam yoo xam ne jigéen moo ko gën a mën a dalal góor ku dellu ci euh, taarixu <clears throat> yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak umul muminina xadija da nga gis ne jigéen am na rôle bu mag a mag a mag ci dalal borom këram su fekkee dafa nekk ci njàqare wala jafe-jafe bokk na ci melokaan yooyu ci loo xam ne borom xam-xam yi tudd nañ ko ñu ne xal mooy soxna su mu nekk ndaw maanaam mu nekk ndaw waaye nag lool tekkiwul ne dañu bëggul nit ki takk ku nekkul ndaw maanaam ku mas a sëy mu kay léeg-léeg sax ñu jiital koo xam ne ku mas sëy la ngir diineem wala ngir ak jege ñaaleem sax ci wàllu bokk wala sax yeneeni maanaa yoo xam ne moo tax jaabir ibn abdillah radiallahu taala anhu benn bés dafa ñëw ci bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente bi yow dégg naa da mu ne waaw mu ne ko gone wala da ku mas a sëy mu ne ah, mu ne ko ah, ku ndaw mu ne ko yow kat ni ko xamee xam nga ne sama papa ci oxot la faatu bàyyi fa juróom-ñaari xale yu jigéen juróom-ñaari xale yu jigéen léegi may wattandikoo takk beneen xale boo xam ne day toll ni ñoom ma ñëw indi ko ci seen biir su ko defee du xam nu muy nekkee ñoom day xuloo rek ci la ñuy dëkk ak i jafe-jafe waaye nag su ma takkee mag moo xam ne mat na leen yaay su dikkee ma leen di taxawu seen di leen xelal di leen sàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko asabta li nga wax noonu la kon am na ay maanaa yoo ne dana tax nit ki bàyyi fi ndaw dem tànni keneen fekk ne bu boobaa intérêt personnel taxut waaye day am na yeneen i njariñ yoo xam ne moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak dundam takk na ay soxna waaye nag kenn rek la mas a takk koo xam ne ndaw la ñeneen ñi ci des yëpp mag lañ boroom xam-xam yi indi foofu masala fiq ñi ne ah, ginnaaw dagan na nit ki sartoonte ki muy yabat ñu sartoonte ci ak ndaw ndax loolu ko dagan na ñu ne ndax kon dagan na mu laaj ko ko moom waa ji buy wax ak ndaw si ci biir ya ñuy yi mu jëm ci sëy beeg seeni sart ak yu noonu mu laaj ko ndax moom ndaw la wala déet lenn ci borom xam-xam yi naa sañ na day suñ ko sartoontee mu dem ba ca biir gis ne bu ndaw sañ naa tas ab séyam ñi ci des ne loolu kat li gën mooy laaj ko ko teel su la nee waaw su fekkee loola noonu la la itteel nga dem su la nee déedéet su dee noonu la la nga bañ caa dugg waaye moo gën dugg ci ba noppi di tas sëy ba ñii laaj bu tax sëy ba tas muy siiw di tasaare sekkari jàmbur loolu defe naa ne moo gën a moo gën a ñor laaj ko ci anam goo xam ne benn lënt nekku ca nga tontu ko su fekkee ne mbir ma ñor na ko su dee amul benn problème bu nekk foofu laaj ko ci teel daal moo gën dugg ba ci biir ba noppi di tas ci kaw loolu doon waaye lu mën a xew moo xam laaj na wala laajut waaye ki nga xam ne day labat jigéen ja laaj ko ci ay sekkaram lenn ba xam ko ca moo xam continué na ci téy ko wala continué wu ca waaye daganul mukk muy nett li nit lenn loo xam ne lu aju ci yooyu seen diggante képp la sañ a yem bu continué nekk jabaram sax suñ ko waxtaan ci lu jëm ci loolu melokaan bi ñeenteel ba sopp nañ